téeméeri araf la am ak ñaar fukki araf ak ñent jappal li ma lay wax fatia téeméeri araf la ak ñaar fukk ak ñent bu fekke amin gi bokut samen kat bu mu dafa japp ben ismu bu ñuy wax muhidu yaa muhidu ci asma wi la bok moyidu samen kat quatre la soo ko dar boo dix fois mu jox la 1240 mo japp quarante yalla bi mu bëgg jangalé na leer loolu leer na allahu hayyu qayyum 240 la mux ni junne la bo len desa mu joxé 1240 mo japp ba légui tour yalla yu bëgg a kon ñaari istikhra istikhra yoy rek doyna na ci ci laxsam bi mo bëgg a mbokk yi tour mu ngi tuddu tam tam tam tam tisu la tam tisu. xam nga tam tamasu dafa am tam tamasu tam tamasu amna meki mais ki tam tisu la tam tisu tatank mim tatank yaasat tam tisu tawi tawi barata nuurullaahu muhammad allah dégg nga li may jàng mbokk mi dama ne la tam tiisu taw yi taw yi barata nuurullah nuuru muhammad boo calculé lool da ngay am mille de cent quarante waaw allahu akbar ma mbokk yi lii laasam la boo xam ne da boo ko bëggee jëfandikoo nii nii lay demee si rofaate ala siru alaw allah allah sama kayu shilla amna nyenti nyenti nyenti istihmal yu bokkut yoo xam ne bokkuñu ñu bindee turi bokkuñu ñu di waxee ñeent yu bokkut waaye benn bi rek laa leen jàngal bi gënee ci Mouhamedou su beneen ma ñëwaat ci leneen ci kàttanu borom bi waaw da ngay jàng fatihatul kitab 124 nga ñëw ci ismul ahsan bi tam tiisu tawi tawi barata nur lay muhammad ala muhammad 124 nga jàng allah wahyu qayyum muhni 54 jang salatu fati ñetti yoon li moy suru bi su la nexé nga bindu ko ba noppi di lal saafara bi di liggey ismul ansam bi ni waye ci kaw bala ngay liggey liggey bi da ngay bind fatiha 30 fois 30 fati ngay bind yu bat sëkk nga bi mi mom yëpp xaaral su tour ak su tour way jurbe yi yéen dugal ko ci bir mi mii di lal saafara fata bi di liggey ismul ansam bi ko tolol as rek yakoy man ko tolol ar yakoy man maa ko wax الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين كون مبكي ني جوخ لين رانديو إن شاء الله تعالى دي نيان يالا مو يوبو ني سي كورتي جي اك جامو ني ني ني يالا نانغو كور جي نانغو نانغو جامو جي نانغو مورم كور جي ني تيي كو ادي بري بري بري بري وصلى الله وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي ني لين دي بلو حق باخ بال لين حق جيرين جيف جي جي جي جي